sëñ Jibril sama mbokku ndawel bi. xam naa yow daa mel ni xaw toll nii. moom ngay ragal ragal koor rek. <laughs> maa ngi ziar bu baax sëñ am di rafetlu jotaay bu baax a baax. jërëjëf waaw euh, hmm. yaa ngi doon topp jotaay bi eh, tey sax yaa ngi waroon def benn euh, benn. Ah, benn live ci Facebook bi. mais finalement bi ñu jàppee plateau bi nga ko mujj annulé am na ci ay ay yëg ban position nga am ci photo bi. effectivement suñu am bu baax a baax a euh, wax dëgg ci ci jotaay bi ak pas-pas bi ngeen ci àndal lu am solo la ndax lii rek Mm-hmm. la ñuy xaaree Touba TV. Mm-hmm. am na solo lool. Mm-hmm. waaw ma ma ma bëgg rek gàttal ndax xam naa ne waxtu bi xaw naa dem donc damay tënk rek point yi nga xam ne jàpp naa ne dina ñu partagé ko. point bi si njëkk siñ am. muy lu am solo te képp koo xam ne dugg na ci rajo bi tey ci télé bi wax nga ko muy yëg-yëg bi. dafa am loo xam ne du du war. te ku ci nekk ci donte du lu scientifique ku ci nekk sa yëg-yëg rek ci jamono da ngay doxee. te dafa mel ni ñu xool nataal bi yëpp bëri na ñoo xam ne nañ ah, man kat am naa yëg-yëg. Euh, li suñ may géej si wax nag dinaa ñëwaat ci waxam tuuti ci kanam. Mhm. mën nañ koo bañ a mën a dàq. Mhm. ndax moom yëg-yëgam la wax kon. Mhm. mais man na may mën naa ne yëg-yëg bi ma am donte du ma ne forcément côté bi lu wér na wala du ma ne forcément lu amul la waaye yëg-yëg bi ma am dama gëm ne kii ma jàkkaar loolu sëriñ bi la. beneen aspect bi muy deuxième aspect bi muy aspect melokaan bi te loolu sëriñ boobu dugg di maanaam kay da cee wax loo xam ne daanaka jëruñu ci sori ndax moom mii spécialiste. Mm-hmm. Euh, ci wàllu kanam gi tànk bi taxawaay bi nga xam ne sëñ bi amoon na ko ci diggante réalité entre une photo ak réalité ndax buñ ne nit dafa am jëmm euh, yow mii sëñ am bu buñ la photo woon tey mm-hmm. man mën naa mën ngaa am jëmm ci photo bi boo xam ne mën naa wute ak sa jëmmi bopp ndax photo ak réalité wute na mm-hmm. euh, donc ñu naan dàll yi bi ñu bi sëñ sëñ maanaam teere bi mu poussé ci dàll yi yéen a ngi gis ay trace yu baaraam kon jar naa tey lu mel noonu am na ñoo xam ne ci ñi nga xam ne dañoo saxal ne wérut nee nañ sëñ bi daawul sol mbaxana mhm. lu ñu mel bu ñu gëstuwaatee euh, bindum mag ñi mhm. ku mel ni sëñ Moussa Ka xam nga sëñ am way woowu mu naan mhm. keroog la Cheikh Bamba daloo curu sara jublu xibla di jàng saaru Bakara bi mu yeggalee mu teg ca saaru Imran ba mu yeggalee daal di woolu si di gaawat kon sëñ Moussa Ka mi nga xam ne xam na Sëriñ Tuubaa wax na fii ne Sëriñ Tuubaa bu doon benn yoon boobu mas naa sol mbaxana kon mënuñoo jàpp ne du photo bi Sëñ Tuubaa dawul so sol mbaxana kon loolu mën nañ ne mën nañ ko dàq ñu wax tamit ne euh, waaw sëñ bi ci photo bi dafa mel ni kuy reetaan euh, ndax ñenn ñi moom dañoo jàpp ne Sëñ Tuubaa rek koo xam ne moom daawul saafonte mënul humanité daawul reetaan foofu it Sëñ Musaa Ka mën nañ ne dàq na loolu ndax boo xoolee njuuj njaaj Sëñ mu Ka doon na wax naan moom rëyul tuutul gàttuloon ba dim njool bu daa rëy it du ko kekku dadaa soxoo muñ kon ñu xam ne sëriñ bi mën nañoo mën nañoo taxaw foofu ne kon Sëriñ Tuubaa daan na muñ te loolu mag ñi euh, ñu mel ni Sëriñ Moustapha Guèye yooyu tax nañ taxal nañ ko ñu ñëw ci jëmmi sëriñ bi ñuy wax naan euh, sëriñ bi dafa tuuti woon ci zahir ak rëyul woon Sëriñ Moustapha Guèye dafa wax lu am solo te li ma wax ci Sëriñ Moustapha Kassam dégg ngeen nee na rëyul tuutiwul gàttul woon ba diñ doñ kon mën nañ ne sëriñ bi tuutiwul woon waaye nag waaye rëyul woon Sëriñ Moustapha Guèye nee na ci ci ci dalil yu wér ne sëriñ bi daana sol dara teg sa xaftaan teg sa teg sa jàllaabi muy tegal yéen a may bu baax waaw ñu sëñ Moustapha Guèye Yarwaay mhm, sëñ Moustapha Guèye Yarwaay nee na mhm. sëñ Tuubaa daa la dara teg sa xaftaan doog caa teg jàllaabi mhm. kon képp ku tegle yaakaar naa buñ gisee nataal bi mu xaw a mel ni lu am jëmm mën naa am teg la baata sëñ Moustapha Guèye waxaat na it ne sëñ bi daawul sol luy buubu kon dafa mel ni foofu mbub mi yam mën nañoo taxaw foofu ne lii kat mën nañoo nangu ne sëriñ bi la njaareem kaggu yooyu ñuy gis muy borne yi ñuy gis ca kaw photo bi nga xam ne photo bu njaareem la te ñu nangu ko ñu ngi ciy gis borne yooyu kon nit loolu mën nañoo taxaw ne lu wér la mhm. bi ci def ci ci ma gaawoon tukkiti muy ndax bi photo yi génnee rek ñu ci bëri dañoo delluwaat ci irwalu nadim bu sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana mhm. te la mu wax euh, euh, sëñ am damaa bëggoon ñëw ci tuuti ci ñi naan date bi sëñ Mouhamadou Lamine Diop wax ci ci irwalu nadim dafa wuti ak 11 mars mhm. ñu bàyyi xel ne soo duggee ci internet dem ci site yi nga xam ne day convertir date hégire ak calendrier géorgien dafay am ay variation mhm. mooy mhm. ñun calendrier bi ñu am bu ñu fàtte ne ñu tënk ci weer bi bokkul ak calendrier statique kon man mhm. na am ay variation ci calcul bi ñu bàyyi loolu xel waaye ci roonu na dim éléments yi te loolu borom xam-xam yi ñëw nañ ci jaruñu ci dellu éléments yi nga xam ne wax nañ ko dafa méngoo waaw suñu am ku ci nekk mu posé wu une question architecte bi ñuy wax J. waaw xëy na xamante wutoon nag suñu Mouhamadou Lamine Diop Dagana de mhm. waaye suñu Mouhamadou Lamine Diop Dagana su waxee ne sëriñ bi dafa jël kuréel ba mhm. teg xeer ba mu noppee jàng basmala ba mu noppee julli ñaari rakka mhm. ci photo yu architecte bi ñu gis fu sëriñ bi di tegee xeer bi ñu gis fu mu taxawee di julli ñaari rakka ñu gis ñu ànd ak moom kenn solu ci dàll ku dul tubaab bi ñu gis ñu ànd ak kenn solu ci mbaxana ku dul tubaab bi war nañoo mën a nangu ne lii sëriñ rek lañ ko mën a misaal dëgg la kon war nañoo aussi bàyyi xel élément yooyu mu nekk lu lu lu am solo. Mhm. beneen bi architecte bi. Mhm. boo xoolee ci site internet bi Delcom. ñu mhm. bàyyi xel ne Mathieu mi nga xam ne moo dugal photo yi moomul site Delcom. Delcom est un site boo xam ne dañ ciy jaay aux enchères yow mii suñ am wala suñ Jibril. Euh, bu bu ngeen amoon loo xam ne ci seen maam dafa nekk lu am valeur bu leen bu leen neexee jël ko jaay ko aux enchères. Delcom bu ko bu jaree. ngeen jox ci site bi. ndax euh, kii yëpp. participation mm. intérêt am mm-hmm. Mm-hmm. léegi moom boo duggee ci site bi di nga gis ne tubaab bi bu ñeenti photo yu sëriñ bi rek moo nekk ci album bi mm-hmm. Mathieu daf ne daf ko jël ci albumu architecte bu ñuy wax Jean Geoffrey ci euh, ab album boobu boo duggee ci site bi di nga gis am na ci boo xam ne tubaab bi moo ànd ak njabootam même écriture même légende bind ci Diourbel 1918 kon mu wane ne moom dafa nekkoon Diourbel ci jamonoy liggéeyu jumaa ji am na ci photo yoo xam ne ay këll la am na ci na xam nañ ne tubaab bëgg nañ ñoom ci wàllu souvenir ak wàllu aar mm-hmm. kon du ñeenti photo yi sëñ boobu rek moo nekkoon ci album bi mm-hmm. kon bu fekkee ne saxal nañ photo yëpp ci album bi ne dëgg la mm-hmm. kii Jules Joffé la kii ak njabootam la lii photo yu mu jël la kon photo yooyu mu jël ci sëñ bi mënuñoo def lu dul saxal ne dëgg la ndax ci biir benn album la nekk mu dencoon ko ba explorateur bi trouvé ko kon may wax rek ne ni ko borom xam-xam yi waxee man damaa jàpp ne war nañoo nag gëstuwaat ndax ñuy wax ne du sëriñ bi Pastef rek lañ ci àndal. Mm-hmm. ñuy wax ne moom it la Pastef lañ ci àndal. Mm-hmm. waaye bu sëñ Mbaye Guèye Sylla maa ngi koy ziar bu baax di ko félicité ci téeréem bu am solo bi mu bind. Mm-hmm. muy Cheikh Ahmadou Bamba que sont devenus ceux qui ont essayé d'entraver la mission. muy téere bu am solo bu mu bind ci sëriñ bi ak ñi doon ànd ak moom ci wàllu liggéey bi. waaye bu fekkee daf ne rek. bu budul loo xam ne lu authentique la rek budul loo xam ne jëlewu ma ci archive rek du ma ko mën a gëm. xamal ko ne bëri na ay mbir bëri na ay éléments yoo xam ne existé na lu wér la te nekkul cartographie ko ci archive mm-hmm. bëri na ñoo xam ne ci ñun suñuy maam wala suñuy maamaat mm-hmm. dencoon nañ yoo xam ne jeexitalu sëriñ bi la te mm-hmm. amul numéro cartographie wuñ ci archive ndax waa ji siñ siñ kaye wax na ko ci euh, collection personnelle am la yoroon donc mën naa ne du loo xam ne automatiquement waa archive nationale wala archive officielle yi dañ koy yor cartographie ko bëri na seen jili ñëw sëñ Jili ñaan ñëw na ci moo am fu may daaneele rek euh, sëñ mm. am mm. xam nga euh, bu ñuy wax waxu sëñ Tuubaa moom mm. dafa dafa neex a leeralal ndax léppam dafoo koo bind mm-hmm. léppam it da ciy indi ay leeral yu am solo mm-hmm. te it nañ bàyyi xel ne sëñ Tuubaa dafa amoon euh, dafa amoon li ñuy wax ci ci wàllu melokaanam wàllu jamal ak jalal ak jamal mm. mu ñu bàyyi xel ni ci gëstukat borom xam-xam yi ni ñu ko waxee ne Serigne Touba mm. jamonoy ji jamonoy natt bi jamonoy sàkku ngërëm gi bokkut ak jamono bi amee ngërëm mm-hmm. te te bëri na ci wàllu bindam boo ko saytoo xool ko di nga gis différenciation yu am solo ci mm. misaalu boppam mm-hmm. ndax bopp loxo yi ñuy wax ak sëñ bi mm-hmm. daawu gestu ak sëñ bi daawu naan kafe xam nga sañ am euh, yaakaar naa ne xasida gi ñuy wax inna allaha in xaadili min ilaahi mm-hmm. min ilaahi fadlu wal karamu bilan mm-hmm. siraati wa inni dahramu mu karamu mm-hmm. Sëñ Tuubaa lan la ci wax nabastu laj wal aliya xat xaadali badala xat xaadali badala laj uh, googu jaayante googu mu jaayante muy fanweeri mbir ak ñett yoo xam ne da koo jaayante ba ko mag nañ demoon nañ ba jàpp ñu laj bi uh, nabastu tax lañ jàpp muy vingt-huit moo ci desoon Mm-hmm. kon dañ ñuy nettali ne Sëñ Tuubaa dafa dafa dem ba suñu borom may ko juróom yi juróom yooyu mu ko may ngir mu man koo def bokk na ci naan café bokk na ci mm-hmm. booti loxo ak yu ni mel donc pour wax rek ne day jar ñu xóotal gëstu bi mm-hmm. ngir bàyyi xel yenn jeexital yi bañ a gaaw a approuvé waaye bañ a gaaw a bañ te it fi may waxee rek mooy yaakaar naa nangul photo bi pour l'instant ba baa ngi ciy am authentification moo gën a wóor ñàkk koo nangul te muy sëriñ dëgg la Euh, donte dañoo demoon ba ci biir ñu ne ah, lii kat bu sëriñ bi waaye ñu fonk ko ba foofa rek moo gën ñu ne ah bu sëriñ bi soppantal ko te fekk lu sëriñ bi hmm. loolu yaakaar naa murid bu ne war na koo mën a mën a moytu may may may may santaat bu baax rek hmm. ci initiative bi di di di soññaat sama bopp ci sëriñ bi rek hmm. di soññaat bokk taale bi yëpp ci sëriñ bi ñu xam ne ki ñu am keneen amu ko ku dul ñun ñu gën koo jàpp gën a yër gën a gën a gën a teewlu te it projet de euh, projet de musée boobu ñuy wax